Barthélémy Diaz di maire socialiste de la commune de Mermoz Sacré-Cœur moom la ñu convoqué woon niki tey ci talaata ji bi ay 15 jotee ca section de recherche de la gendarmerie bu Colobane si ab descente bu mu defoon tey si talaata ji si suba ngir dakkal travaux chantier bi ñu doon amal ca corniche boobule moom Barthélémy Diaz nee na mësul joxe autorisation ngir construction boobule. buñ sukkandikoo si ëttu yëglekaay bii di IGFM moom maire bu Sacré-Cœur Mermoz di Barthélémy Dias nee na bi président Macky Sall bi muy tabax siège APR boobu joxu ko woon benn yoon permission da ko njaari ñëw rek tabax ko par force nee na ba loolu moo tax tey jii mu taxaw temm ngir dakkal travaux yooyu le ngir bañ mu daal di am ndax moom joxewul benn yoon autorisation ngir ñu tabax boobule chantier ba tax rek convoqué woon nañ ko niki tey bi ay 15 heures jotee dañuy bàyyi rek ba xam fan lay mujjee a loolu ndax dina am wala du am moom Barthélémy Dias daal fi mu nekk nii bañ na kaare ne du nangu ne chantier yooyu daañ ko taxawal lépp loo xamante ni nii ruusani war na ko jëm ci mbir moomu le moomule 24 actu dina leen ko toppal ba xam fan lay wànnent di mujjee ki gëtëm